dugg un peu ci suñu sport bi nga xamante ne <laughs> suñu waxee sport euh, dañuy wax ni euh, fii ci Sénégal euh, làmb moom mooy suñu suñu culture et que moom mooy favori ci suñu sport yi nga xam ni moom la ñuy def waaw làmb ci suñu culture la bokk ba pare mooy suñu favori ci sport yi ñuy def yëpp moo ci jiitu moo nekk au au football bi foo ko teg. waaw football bi am na. le il est plus football. Hmm. waaw que làmb. il est plus football que làmb. wallaahi. ah oui. waaw. ah kon de waa làmb ji moom jël nañ bës boobu moom tur boobu moom dàqantale nañ leen ko bañ moom ko. xam nga boo feesalee seen stade. Mhm. ñoom ci niñ koy gisee. Mhm. mooy day dolli làmb. day dolli làmb. waaw ok cest mhm. làmb mooy suñu sport. ki ko daan wax mooy Tafa le grand reporter. Mhm. mooy bi ma la wax sànq. Mhm. Moustapha Ndiaye. Mhm. doon mbokk ci man. est-ce que xam nga ni Moustapha Ndiaye santul Ndiaye. Moustapha Jara lañu. Jara waaw mooy euh, vrai nom. dañu bari nag xamuñ ko. mais suñu sport yooyu gis nañ ne léegi euh, kenn mënu ko wax te doo tudd violence. à quoi bon lu tax mu am violence. lu tax mu am violence et lu tax mu war ko am. soxna si xam nga kañ laa daan seetaan làmb man. ci mhm. dëgg-dëgg. Mhm. xaw ma toll nag sa jamono ou pas. Mhm. Cheikh Mbab bu njëkk ba bu mag ba tan jóge Mbour sama mbëru yaay la woon donc daan na ñëw suñu kër sama yaay abal ko ay sor. bu waree bàkku ji mu takk sër sor yi. ba mu fees dell. bàkku ji. tama yi dar ko loolu fii dama fekk ma doon ndaw mhm. sama yaay décoré na ko donc euh, làmb man foofu la commencé ci man parce que Cheikh dafa mënoon bëre bëre boo xam ne nii mar détaillé ku mu jàkkaarlool euh, daan la daan mhm. ba ni ñoom Mbaye di ñëwee mhm. ba ñoom Double Less ñëw dugg Fodé Doussouba nga xam ne nii bi mu ñëwee fii eh, waa kër Balla mm-hmm. ñoo ko dal boobu waa kër Balla Gaye soose yi lañu gënoon a indi parce que bu ñu tëgg doon tëggal papaam Double Less mm-hmm. doon tëgg tëggu soose ñoom ñuy fecc soose ak Fodé Doussouba mm-hmm. Fodé Doussouba bëri na ak sama maam Volda Volda xam nga ko woon tolloowul ak sa jamono. Mm-hmm. mais ñu njëkk de njëkk ji ñi nga xam ni nii làmb intéressé mm-hmm. xam nañ bu mm-hmm. baax Volda mi nga xam ne nii moo nekkoon Sandaga yore clairon bi. waaw clairon boobu daf ko doon ëf pour que fii mu nekk ci boutique boobu. animation boobu mu doon def moo doon jaayaale en même temps boutique bi. donc kooku dafa xëy rek dugg ci làmb ji man nijaay la woon ci man. Mhm. donc euh, mu daan ko foo Fodé daan ko. dégg naa sax ci ñuy wax euh, ci nettali ah kooku fekkewuma ko mais dama dégg ci nettali xam nga nit ñi fii moom. Mhm. Euh, c'est la république boo xam ne nii dafa bari ay wax yoo xam ne nii wax yu sew. de l' interprétation mm-hmm. la république de l' mooy Dakar mooy Sénégal si. Sénégal waaw loo fi wax ñu interprété ko. Mm-hmm. attends photo. Fodé Doucewa daan na ko wax. la taxoon mu wax ko nag. Mm-hmm. Euh, Fodé dafa amoon masse boo xam ne biir bi dañu gën a ràññee ci moom. moo fi nekk le seul mbër boo xam ni daf la doon daan ba pare daan ne attends photo boobu jamono jooju saala kasi rek mu nekkoon ci làmb ji. yore équipe am di photo mhm. defe naa ni photo foore du suba sax ma nga fa dafa daan daan mbër bu ko daanee mhm. nit ñi bare werante parce que ci daan bi mu koy daan moom ak euh, na ko doon euh, na ko doon defee mhm. mu jege bu la daanee day toog sa kaw ne la nga ne ko wàcce ma mu ne la attends photo xam nga temps attend photo boobu. Mhm. parce que dañ daan werante ay combat ak ni muy daane. ni muy daane waaw. mu ne la attend photo. donc mhm. attend boobu euh, signe la boo xam ni ñi nga xam ni xam nañ li may wax ni mhm. xam nañ bu baax attend photo boobu la daal moo ko waraloon. donc man ci jamono yooyu laa daan dem làmb di ko seetaani. sama yaay fexe ba mu bëgg ko ak Cheikh Mbab bi nga xam ne mbërëm la woon. li may wax ni ñu bari xamuñu ko. donc li may laaj ci làmb mhm. dama ci sawar a wax mhm. te sañ naa cee wax war naa ci sax war a wax mhm. parce que képp kuy sénégalais dafa naa ni cosaan la boo xam ne ñun ñoo ko moom donc war nga ci intéressé wu mu neex la surtout que léegi dañ ci dugal euh, yeneen yoo xam ne nii moo ci génne neexaayu làmb ndax nit ñi bu ñuy dem léegi pecc bi nga xam ne moom da mbër yi dëkk yi bàkku bi dañ koy xaar mais gannaaw bàkku bi bëri bu rafet. Mhm. bëri di daan. Mhm. day fekk bëri bu rafet nga nekk ku technique. Mhm. ku am xorom ku mel ni Balla gay par exemple. Euh, vraiment tolloon na fi ay jamono yoo xam ne boo waxul Balla Gaye euh, nit yi amuñu leen neex. su gëjee nit ñi di ko laajte. su bëree aussi tamit am ci fulla ak fayde boo xam ne nii. li tax ñu sopp ko bëri bu day gaaw. mu ànd ceeg rapidité boo xam ne nii. ku mu jekku dafa defal la bagage mhm. donc du café bëre mhm. loolu moo gën a intéressé fi mu nekk ni euh, amateurs yi mhm. ba nga xam ne dañ koy nam mu ñëw ci làmb ji waaw loolu daal laa xam ni bëri moom soppeeku na foofu la commencé di soppeeku bu bër ki boo njaay nga xam ne ñu gis euh, wax dëgg fa yàlla móodloo mu dikkee dikkin boo xam ne nii bu jaaxal nit ñi la. Mm-hmm. damu daan bari gàllaaj bariwu ko gàllaaj. Mm-hmm. dikk na daal ak ngembam. diwoo suufam. Mm-hmm. ba pare nag daal di taxaw. def ay entraînement am bu jógee ci entraînement am def yëngal articulation yeeg yooyu. à boobu daal toog na def làmbam comme il le faut. ñu woo ko mu bëri mu bëri daal di bëri daan mm-hmm. waaw loolu nag ñu bëri jaaxal na leen mm-hmm. te man jaaxaluma lu sax jaaxal loolu parce que xam nga il fut un moment où j'étais directeur de rajo bu Jàppo FM parce que dama def communication mm-hmm. alors ma ñëw ñu dénk ma rajo boobu ma commencé di fa liggéey sopp programme yëpp parce que rajo communautaire ak rajo yii ngay dégg roowuñu bokkuñu. donc bi ma defee loolu ba pare euh, kuñ daan wax Malick. Mhm. Malick Guèye. te léegi mu nekk euh, ci télévision wu euh, Sen TV. Mhm. defe naa ni Malick Guèye la. Mhm. am na benn émission mbaboor bi xam ma lan bu ñuy def. Malick boobu. boo daan def émission làmb ji ci rajo Jàpp FM. foofu la convoqué woon. Modou mm-hmm. boobu temps xale bu ndaw la euh, ñuy waxtaan ci kii mm-hmm. man nag comme dama daan génn di natt rajo bi ba fan lañ koy déggee ndax puissance su émetteur bi mm-hmm. donc ma nekk sama oto di déglu waxtaanam mës naa fekkee fu muy bëre foo xam ne nii position ba mu nekkee man dafa ma jaaxaloon ba tey mu def ko vraiment daanuñu ko écart bu mag la def mu di ma rappelé benn euh, buroka boo xam ne nii day faral di jouer film. Mm-hmm. dégg nga Vandam lañ koy wax. xaw ma mm-hmm. voilà la boo xam ne nii yooyu ci Vandam laa ko gisee yooyu xam nga Vandam daf ko mën. Mm-hmm. noonu la Modou bëree bëree ba. Euh, damay fàtti ndax daan nañ ko daan nañ ko. xam naa ne daal ka doon bëreel jëlul ci ndam. alors ka mu doon bëreel ku jafe bëreel la. ba pare yàlla def mu nekk muuma. te boobu moo tax ba nekkul mbër donc je crois daal boobu mm, xaw ma mbapat la xaw ma daal am na daal lu xewoon ba ñoom ñaar ñuy bëre. Mhm. mais pour mu daan ko c'est tout un problème. Mhm. pour mu ma tamit mu ma ko mën bëree la xam-xamu bëre malgré que yàlla bind na ko koo xam ne mhm. mënul wax mais xam-xamu bëre dafa nekk ci boppam. waaw. ñu may dégg xam nañ li may wax. Mhm. ñoom xam nañ bu ma waxee lee xam nañ bu baax. Mhm. bon Ama Baldé keroog dafa bëriwul bëri bi nga xam ne nii moom la tàmm di bëri. Mhm. mbër boo koy xitimal ak liñ ko yebee mu ñëw ci làmb ja bokk na ci li ko daaneel. maanaam kii yaa ko mën. boo ko jàppee rek làmb ji jeex. soo demee ci làmb noonu la te nattoo ni ki ngay bëreel. am na réaction bu ko defee boo xam ne li li li nga soxla doo ko fa am mhm. donc loolu déjà daan na la te yeggaguloo mhm. nit ñi ngay déglu ñu lay sol di sol di sol di sol parce que fii dafa bari ay soxlukat mhm. dégg naa sax ci weewu bay ne Moustapha Moustapha Gueye waaw sotti na ko benn saafara hmm. moom moom ama maa ngi leen koy jox benn primeur la boo xam ne ma demee barki dem boo njaay je crois que ci univers univers euh, TV. dañ mhm. ma laajee loolu may leen mhm. Moustapha attention yéen a ngi jaxase ay kër yoo xam ne war a leen leen jaxase. Mhm. lépp lu bokk ci Balla Gaye biñ ñëwee fii Ndakaaru ca ba Double di ñëw pour ñëw Ndakaaru fii Fass ñoo leen dalal li may wax ni lu wóor péng la waaw Fass moo leen dalal foofu la ñu jógee ñuy dem di dem di dem làmb di dox di dox ba ni ñuy defee seen euh, kuréel ñoom it. Mhm. Euh, tuddee neneen seen bopp. Mhm. bon làmb di dox ba léegi donc euh, li ci nekk dox yëpp ci histoire. Mhm. dama gisul vraiment fu loolu di xewee ak Moussawa nga xam ne tuddee nañ ko làmb. amul dara lu muy def lu muy ñëw di. wis saafara quand même wax de yooyu maanaa ko donc loolu Moustapha du jikkoom. parce man. xam naa Moustapha mais du lool. Mhm. magam laa gën a xam muy Mbaye Gueye. Mbaye mhm. parce que noo tolloo jamono. te ensuite dañu nekkoon ci benn euh, gunge benn nit. boo xam ne mhm. doon def politique muy Abdou Diouf. amoon na ay blouson yu ñu defaree Abdou J Croix Abdou J Tian. waaw mbootaay boobu Abdoulaye Makhtar Diop moo ko créé woon. donc ñun ñaar fa la ñu gën a xamante parce que dañ daan fanaan nii ci benn salle sama mat la nii moom mat laam nii mhm. donc euh, xamante noonu noonu euh, am fa ay rapport yu baax mhm. yoo xam ne yi dañ daan waxtaan di kaf mhm. ku reelu la xorom donc ci dundam vraiment en toute sincérité gisuma bu jikko woo jikko mag ji bu muy def mbër du demee donc euh, nit day gis lu baax di ko tudd wala di xalaat lu baax di ko wax. Mm-hmm. ak di waxal nit loo xam ne nii vraiment dayoom ëpp na loolu. Mm-hmm. mais Moustapha moo sotli nga laaj Ama Baldé. Mm-hmm. ba ñu daan ko non attends. <laughs> Sénégal lañ nekk mais bon. gannaaw yenn kii yeeg yooyu dañu war a daw wax. wax bu yàqul rek day defar. kon nañ continuer wéy ci wax ji defar. Mhm. moo gën wax ju yàq. waaw euh, c'est important nañu wéy di defar moo gën ñu yàq ndax nag wax dëgg yàlla suñu réew mi baaxoowuñu loolu te it euh, kenn mësuñu xamee loola euh, bu ko defee rek mon amour ma bàyyi la nga tàggatoo ak internet yi. waaw damay ñaan suñu président de la république. Mhm. mu bàyyi Sonko. Mhm. bu mu ñëw bokk ci géew bi. parce que am yoo xam ne nii su koy nit di seet. politique waru koo jar. Mhm. parce que lépp ay jeexe ci àdduna. te comme moom defar na li muy defar ba tàggoo kër gu mu dem tàggoo fa na rafetal derem rafetal ginnaawam parce que ba mu taxawee ba ni rek dootul bokk. Mhm. man na mu ko déggee woon mooy dootuma dugal sama loxo ci lenn loo xam ne danaa téye nit eh, kër gi nag ci yoon waaye am na yoo xam ne nii duma ci dugg ba yàq li nga xam ne nii jot naa ko defar maanaam bokkuma te comme waxoon naa deux mandats samay mandat jeex na maa ngi dem mhm. ci njëkk ak teraanga comme moom ni mu ko bëggee di ko wax nit ñi waaye ci njëkk ak teraanga baat moo ko moom mhm. kon nag na fa jëfee ci njëkk ak teraanga mhm. euh, élection inclusive la soxla paa ñuy xatal nit ak di ko def yoo xam ne nii bokkul ci dund sax bay bokk ci nit waxtuma di wàll si ci politique bi. Mhm. fii dañ ko war a seetal ba mu leer naññ. ñii farak Sonko farak Sonko. Mhm. fonk Sonko mu ne bokk ci élection yi suñ koy wotal ngir yàlla bu mu def bu mu def dara ba indi ay njóot njaaj. Mhm. tabb na ki muy tabb mu ngi ànd ak moom di ko gunge ci biir politique dañu yem ci loolu. dégg nga def jàmm ci réew. moo gën lu ne. waaye leneen lu ci dugg rek. day génn cadre suxlu sax bay dugg ci yoo xam ne nii waru ci dugg mm-hmm. du man du yow nag yàlla dong moo ko mën mm-hmm. waaw waaye tey doo fi lii yàlla rek mm-hmm. waaw kon moom dem na màkk ba ñëw ànd ak soxnaam dem ba ñëw ngir yàlla na ko soxnaam si yedd <laughs> dem ci jàmm ak salaam dund yeneen dund ci jàmm ak salaam waaw man daal loolu laa koy ñaanal waaw ñaan la nag j'espère que dina ma dégg moom fii rek lay suivre Desport rek lay suivre. ah ayca boog bismillah. <laughs> ayca kon mu ngi noonu euh, ñuy wax rek internet yi nga xam ne ñoo ñu doon bàyyi xel cant ak ngërëm ñeel na leen. Euh, mhm. mbokk yi yéenay seede. Mhm. waxati na. wallaay ndeysaan. Mm. kon nag ñu seet. jeex na tax bareen di déwén. bareen di déwén. waaw ah, kay. caaw caaw. foofu laa koy tëjee bareen di déwén. <laughs>